nuyu ñëpp di jaar ñëpp di jox ñëpp seen cër ak seen wàccuwaay di kontaan ci invitation bi invitation sax laay wax parce que dafa am initiative boo xamante ne suñu ay papa sun ay grand frère ñoom ñoo ko taxawal boo xoolee ñoom seen première réunion bi ñun ñëwuñu woon muy son papa muy père de Gaulle père Paala Diop yaa ngi dégg Abdou Bakhoum Pape bu père Bourkhane Wade père Xës grand ñoo ñoo taxawal seen mbir tuddee ko deux cent pour cent Pikine muy maanaam pour ñun doomu Pikine yi ñu bokku ndey bokku baay ñu yëkkatandoo ñu dóorandoo te loolu mooy li war kon ñun ñi taxaw fii ñun mbër yi te ñun ne invité lañ fi doon dañuy invité ñu ñëw man nag ma ñëw ci ñaari mbir mu njëkk bi dama ñëw en tant que doomu Pikine nekk mbëru Pikine dëkk Pikine di représenté drapeau Pikine comme ñi ñëpp di ko représenté ñu taxaw ñi ñëpp. beneen bi mooy dama ñëw ci ndigalu kilifa muy sama papa wooba ñëwal ci réunion bi loo jàppoon bàyyi nga ñëw ma ba lépp lu ma jàpp ma bàyyi ko ma ñëw donc ñaari mbir yooyu laa fi ñëwee waaye dama fi ñëw tamit en tant que doomu Pikine dimbal teewal fi ñi ñëpp donc man rek su ma ñëwoon te gars yi ñëwuñu sax daanaka man na gars yi tamit buñ fi nekkoon tamal ñëw ma daanaka mën na parce que comme ni ñu koy waxee rek Pikine mbëri Pikine yi amuñu problème ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay te mënuñu am problème parce que ñun doon Pikine moo ñu ko def. bu fekkoon ba ñuy débuté muy métti ñuy bëri mbapat di génn di bëri ay premier combat deuxième combat bu fekkoon si waa Pikine dañuy seetaan kon du ñu yegg si fii donc kon ñun fu ñu yegg waa Pikine yi ñooñu fa yóbbu. mooy supporters yi nga xamante ne bu ñu amee bis ñu sonn ci dagg seen biir dem star supporter ñu jàppale ñu donc ñooñu nag ñun ñu tollee fii maanaam dañ leen war a delloo njukkal delloo njukkal mooy ñoom dafa am lu ñu bëgg mooy ñun mbaru Pikine ñu bokk ndey bokk baay ànd. waaw li ci am mooy lu premier li ma njëkk a wax mooy ñu bokk ndey bokk baay loolu am na ñu ànd am na waaye la fait que dañoo bëgg ñu jaxasoo te loolu ku xawal xam ne dafa des paa nag ñu ngi leen di bu baax a baax parce que bu ñu waxee Pikine di làmb da ngay tudd. suñu papa yal ko yàlla xare àjjana muy Faalaay Baldé man ba ma nekkee xale di commencé di bëre pare ci mbapat jël sama premier komba deuxième combat sama jotoon avance bi sama papa dama ma doon wax ni da ngay dem ñii Pikine il faut nga dem jox leen seen ñàq ci mbir mi parce que dañ cee bokk muy sama papa Faalaay Baldé sama papa sama maam la man sama maam la papa la ci man sama papa Basson Pape Diop Basson paa baaba Diallo ku ci nekk dama doon ñëw sa kër bu dee fukki dërëm wala ñaar fukk ma ñëw na la am sama papa moo wax ma ñëw fi dama am combat man la doomu dégool loolu sama papa ma koy def ma ñëw fekk sama papa këram waxtaan ak ma bu yaatu ne ma yow sama doom sama sën nga ne ma sa papa ànd na ànd naa nag bàyyi sama doom muy bëre fii Dakar ma bàyyi sama doom papa muy bëre ma ak sa papa dem Kébémer ci combat am gunge ko. donc yow suma lépp nga am na loo xamante ni sax déggoon naa ko fi fekku ma ak sa frère ngeen bëre waaye ki def loolu tooñ na ma yéen ñaar yéen a bokk ndey ak baay suma papa Faalaay mi ngi ci dëgg moom moom wax loolu. Jules Baldé nekk suma grand ma ko fa doon fekk moom fu ñu gis ma jël ñaari doxo nuyu ko jox ko cëram jox ko wàccuwaayam parce que moom noonu la taxawee ci ñun. Eumeu Sène nekk suma mag nekk suma grand ñu sekk lu bari ma jege ko loolu tamit ànd nañ fu nekk. ànd nañu salle musculation ànd nañ fu nekk ñu sekk ay teraanga sekk mu sekk salaam loolu tamit laa sekk ak ñi ñi tamit moom lañ sekk ak man Pikine ñun mbëri bu ñuy fayante ku ne da ngay sa morom parce que ñu ñëpp dañoo sekk jàmm sekk salaam suñu grand Ndiaga dañ doon nekk ay xare yu ndaw mu jël ñu buy entraîné dañuy tingoom teg ñu si boppam di daw ak ñun suñu ay grand Tidiane joob ñi si ñoom lañ jàngee bëri suñu ay grand Baye Cheikh Tidiane mi xam na lu may ñu nekk ay xale Pikine mbooloo fii suñu papa Pala Diop baaba baaba baaba Diallo li mu wax nii dëgg la ñoom ñoo ñu tàggat ñu nekk ay xale su ma ñëwoon Père Baston daf may wax ne eh, ay an sa saak école ma ne ko mu ngi nii ma ne foo mu ne indi ma ko mu sànni ko fële dama doomu mbër nga naan da ngay jàng dama fee nga bëre ma dem dugg ci gaay gaay yi di yónn dóor suuf ma nekk xale bu ndaw donc Père Iba lii mooy yoon ñun dañoo war a ànd bokk ndey bokk baay mu rafet parce que paa yi dañu àndoon wax nañ ko fii dégg naa son grand Jules Balde mu wax ko ñoom bu ñu doon ànd dem bëri ji ay mbopp fu ne dem nañ fa. donc ñun suñu ñun xale yi bu ñu ñëwee ñu moytoonte wala ñu yàq loolu fay ñu naar bu xoromam te dañoo war a ànd. grand jour ba de léegi dafa wax fii benn affaire bu am solo mu ne fii kenn mënul yàqal sa morom dara ku nekk li nga war a am suñu borom bind na te nit mënu koo dindi grand jour ba de moo ko fi wax léegi mu jëlee parole te loolu mu wax dëgg la loolu nag bu dee dëgg na ñun ñëpp dañ ci war a dox. au moins sax ñu jàppale ñi nga xam ne ñooy suñu ay supporters ñu jàppale leen ñu leen di jàppale mooy ñoom la am lu ñu bëgg mu jone leen da ngay supporter Boy Niang wala supporter nga supporter Eumeu am am limite am foo xam ne mënoo fay yegg te loolu noonu ñu ñoo leen ci mën a jàppale mooy ñu bokk ndey bokk baay jaxasoo dañuy jël exemple dëgg moom dëgg rek a neex dëgg man dama koy wax gars yi damay toog ci gars ñu waxtaan ma ne leen damay jël exemple ci cent pour cent xam nga nit moom boo gisee lu baax danga koy wax seen cent pour cent dafa dëggu torop ñu ànd mu rafet torop dama leen gis entraînement ñu ànd mu rafet torop te loolu dama ko rafetlu te loolu mooy yoon ànd nañ dëgg nañ waaye nañ jaxasoo jarul ñuy ragalante jarul kenn di daw kenn parce que fii lu am la suñu borom la te lu jot rek yomb ñu ba ñuy nekk fi ay xale nekk Pikine mbooloo dafa am ay grand yoo xamante ñoo ñu ëppoon doole dàq ñoo bëri foofu duñ sax suñu morom te ñu ngi dox ci tali bi di dajeek ñoom ci tali bi parce que seen wërsëg moo nekkul ci làmb donc il faut ñu xam loolu sa wërsëg bu nekkee ci làmb mu ñafe mu neex da koy jëli donc ñu ñëpp ñu bokk ndey ñu bokk baa ñu ànd ñu yéeneente jàmm ñu xam ne ñu ñëpp ñoo far Eumeu Sène moo ne suñu mag ñu ànd jox ko cër bu mag bi topp ci ginnaawam. Sénégal monde entier Pikine ñëpp xam na ni bu dee mbiru Pikine rek boo waxee boo Niang ma je suis partant bu dee mbiru Pikine boo xoolee mbiru Pikine booy xaar mbër yi booy xaaral booy ñaar dina ñëw parce que bu Pikine la comme yeneen mbër yëpp waa ñun dañoo war a bokk ndey ñu bokk baa ñu jàppalante ñu jàppale suñu ay rakk tamit yi nga xam ñoo nekk ci ginnaawam parce que mbër bu ndaw mbër bu ndaw dafa métti trop ñun bañ nekkee Pikine nekk mbër bu ndaw maa koy wax sa ay ay boy bu ñu pare woon entraînement ay Malal Ndiaye da leen di kooj jox leen ñu jënd cere ñu yëkkati téeméer jox ñu wala deux cent wala trois cent te ñooñu noonu suñu mbëri ndaw yi léegi loolu la ñuy dund parce que noonu la ñu jàppalante bokku ndey bokku yeneen yéeneente jàmm Ama Eumeu Sène Boy Niang ñu xam ne yamul foofu rek ñooñu ay mbër waa ñeneen ñu ngi ci ginnaaw ñoo xamante ni gënuñu leen doon ay mbër gënuñu leen doon ay doomu mbër te ñoom dañoo bëgg affaire bi bëgg a ci kaw waaye yàlla moo dogal bu ñuy wax Pikine rek da ngay nekk benn déedéet dañoo war a wax mbëru Pikine yi nañ nekk benn ñu ñoo xam ne xamuñu leen wala ñu ngi soog génn ku ci mel ne Jara de yaa ngi dégg caatu Boston nag nii keneen ak keneen bu ñu limee dañuy juum ñoom ñëpp ay champion yoo xam dañoo gëm seen bopp di ay doomu mbër wala dund ci milieu mbër ba xam ko ba bëgg ko bëgg a yegg fenn fii donc ñun ñëpp ñu jàppalante bokku ndey ak baay mag ñu jox ko cëru mag bi muy ëmb moom tey mu jël ay responsabilité man damay wax ni problème bi Pikine bi dëgg la dëgg ñu ngi wax ni Pikine am problème du ñu am problème mais dama ne ëmb seen dafay am responsabilité parce que moom mooy su ma nekkee mag na nekk samay rakk fu ci amee ku ci juum wala ku ci wàcc ci raay bi damay dem jël la poñe de fii laa poñe indil la tegaat ci raay bi ni la nii mooy yoon bi parce que moom cër boobu dafa am parce que moom dafa toogee dañuy wax ni moom dafa am lu mu ñu ëppalee muy dafa bëreeg Pierre de loolu mu ñu ëppalee nag daf ñëw di chaque instant di ñu ko wan ci ay rakam ñi nga xam ñoo nekk ci làmb ku ci wàcc ci raay bi mu dem jàppale ci bopp wut yat teg ko sa bopp indil la tegaat la ci raay bi lii mooy yoon bi parce moom dafa am cër boobu ci ñun man loolu laa war a di ñaan Piquet yàlla na fi jaamu yàgg di ñaan soq mi nga xam suñu frère la mi am combat yàlla na ko suñu boom may ndam. ñu ñëpp ñu jàppale ko gaay ku mënta dem ci entraînement bi open press bi nga teew ñun ñu ngi diggante chaque jour yéen ku ko mën a woo nga woo ko ñaax ko dooleel ko. amee sa benn paa boo xam ne wóolu nga ko nga woo ko mu ñaanal soq moo ko yàlla may ko ndam ñeneen ñi ci kanam ñu am komba muy mbëri ndaw yeeg yu mag yëpp ku ci nekk sa combat yàlla na yàlla may ndam ku amagul suñu boom may la combat ñu ngi sant yàlla ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp di di remercier tamit paay parce que lii mënoon leen ci bañ a fekk parce que ñoom seen wàllu wëy na neexoon ñu dem nekk ci leneen daal mais xam nga bu ñu nekkee fi passé temps bu yàgg bi nekk fii di wax ni pour booy jubóo ñun tamit dañoo xam dañoo war rafet rafetlu loolu daal ñu ngi sant paay di leen gërëm bu baax a baax waaw. Euh, Mhm. Mhm. waaw booy comme li ma la wax rek su ma la waxee parcelle seen samp pour dëgg la ba ma ko waxee ñi taxaw fi ñëpp nekk ay Pikinois dañu xam ni dëgg laa wax parce que dëgg rek mooy dëgg te li ma gis laa wax ba dama ci kontaan nag su ma leen gisee ñoom leader mbër yi ànd ay champion parce que dañuy mottalante rek. parce que ku ci nekk da nga soxla sa morom mu ñoom ñu sekk affaire bi te loolu avantage la waaye li nga wax dañu jëm ak ñoom bis te ñun bis bu ñu doon dañ ko fonk parce que am suñu frère boo xam ne soog nekk borom baax gëm li muy def nekk jàmbaar ba fi mu yegg koy ñaanal suñu moom defal ko ndam ñu ànd ak moom man dëgg-dëgg dama fu muy entraîné mais maa ngi déggante ak moom démb rek mujj mujj mu ngi déggante ma moom ñu ngi waxtaan maa koy ñaax ci combat bi parce que fi mu toll nii foofu laa toll ak moom maa ngi koy ñaax ci combat bi di ko ñaanal. parce que moo ma fi ñëw yor micro bi di fi wax loo xam ne amul li am rek laay wax waaye boo gisee ma jël exemple ci ñooñu ni da ngay gis lu rafet pour nga mën ci copier mu rafet ñun mbëri Pikine pourquoi dañoo mënta def loolu bokk entraînement kafre waxtaan ànd daw ànd entraîné comme ni koy gisee waa passage ñu ko defee mu rafet image bu rafet loolu pourquoi Pikine mënu ko am te Pikine seen image bu dayree benn image moo ko daax ay champion yoo xamante ne dañ ñafe seen live zéro ba léegi seeni papa di ay champion ñu jaayante ba ci ñu yegg si ba Pikine ba fi mu toll nii ci làmb doo tudd ñetti mbër da tuddoon mbëru Pikine te loolu ñun ñoo ko ñafe nekk ay xale yu ndaw ñafe ko ba yegg si ñu yegg waaw kenn xale yu ñun dañ jaante ba yegg si donc Pikine seen image ñu àndee nga gis mbëru Pikine comme sama grand waxee léegi dafa wax lu am solo nga ko toog gis mbëru yëpp ñu ànd ak foo nekk nekk Pikine waa sa dina sedd maa ngi koy remercier tamit grand wax lu am solo la grand du Ndiaye xol la waxee sax waaye am solo nga wax dégg naa bu baax fi nga waxee parce que àdduna noonu la comme ni ñuy wax rek groupe bu ñu àndee façon bu ne moo ci nekk waaw dañuy fexe ñu defar ba mu rafet rek ba ñëpp ànd ñu bokk ndey ñu bokk baay comme li ma wax ni sama wax bi nag sama wax la waaye sama waxu ñi nekk sama ginnaaw yëpp la suma ay frère Pape Sarr tamit ñu koy féliciter bu baax di ko remercier Pape Sarr parce que comme ni nga ko waxee dafa sonn ci Pikine Pape Sarr da ngay dégg lu ko neex ak lu ko naqari ak ñeneen ak ñeneen ñu nekk ci Pikine ñu ngi lay remercier grand di la wax ne ñun mbëru Pikine li ñuy waxal ñu ko kaasal yëpp gis nañ ko ñu ngi sant ñëpp gars yi di gërëm ñëpp journaliste képp ku teew fii nii di wax ñu lay sant di la gërëm ndax gis mais loo mais loolu du question sox dama ko war téléphone ma ne ko man dafa am loo xamante ni bu ci kom bu mbër moo ko gisee ci mbër bi rek damay am confiance ci combat bi. mënuma la la ko damaa gis ni da bëgg combat bi da ngaa ñeme adversaire bi te ñaar yooyu ñooy baalu combat mbër boo te jër soo jékki-jékki bés ngay bëre roi des bi sax nga ñeme ko gëm combat bi bëgg combat képp ku nekk sa ginnaaw war a am xel bu daal parce que moom xam na ni lu nu gunge gunge ñu ñëpp dañuy génn moo ne ci géew bi léegi kooku dañuy bàyyi ci géew bu ñu gisee ni moom ñemee na adversaire bi bëgg na combat bi bëgg na bis bi kon ñun xel day dal ñun ay frère am lañ ñu ngi koy ñaanal ko ndam am na benn grand bu jël léegi benn am na lu mu wax mu ne booy ñaa ama seen ama bu léegi relève bi ñan lay doon loolu lu war a lu jar a bàyyi xel la parce que suñu ay mag ñoom Tyson ñoom Ndiaga Diop ñoom Baboy ñeneen ak ñeneen bu ñu fi jugee Eumeu Sène dafa ñëw ñeneen ak ñeneen topp ci ñu ay rakam ñu ñëw taxaw donc tamit laamu noonu la ñun kenn du fi bëre def lu fi kenn deful bu nu bëree suñu carrière ba mu jeex dañuy pousse suñu ay rakk ñëw donc dafa am solo nag ñu bàyyi xel suñu ay rakk yooyu ñu jàppale leen ñu bàyyi leen xel bu baax loolu nañ ko bàyyi xel ñu ñëpp ñu xam ni làmb ji du booy Niang du Eumeu Sène du Ama kese am na ay champion yu nekk Pikine yoo xamante ñi bu ñu sekkee ñoom ci géej gi mënuñu leen a daan ay champion yu mat lañu te ñu ngi fi di ko liggéenti muy métti bu baax gars yi leen loxo bu baax jàppale leen comme ni ñu koy waxee am na paa yi fu ñu laal nag muy ñi nga xam ne ñooy autorité yi Pikine ñu gën a jàppale mbaru Pikine rek gars yi ku ci am combat ñu ñu jàppale la bu ñu xaar sax combat dañu xool écurie yi ñu defal leen ay subvention waaye comme ni ñuy wax loolu yëpp pour mu tege grand Babacar lépp pour mu tege il faut que rek ñëpp bokkul ndey bokku baay te cent pour cent pour cent yi ñuy wax ni yëpp dëgg mais bu dëgguwul rek du dem fenn waaw wala dëggu quoi parce que gars yëpp loolu la ñu ba mu génnee ñu ne boo waa Pikine dañuy def deux cent pour cent ñëpp dañ ne noo dëggwul bu dëggwul du dem fenn waaw loolu tamit dëgg la wala tamit xas na ci ñun lu tax ñun waa Pikine mënuñu ànd loolu moo tax comme ni ñuy wax nii làmb instant ay ku ci ñëpp di ay xale sax sant yàlla bu baax làmb am na lu ñu may làmb teral nañu bu ñu amee suñu kër dugal ci suñu papa suñu yaay làmb moo ñu ko may léegi après lan moo des suñu carrière la ñuy continuer ci jàmm waaye léegi du tax mënuñu ànd dañu war a ànd gaañ ñu ñemente ñu bàyyi ragalante bi ñu ñemente bu baax ñu bokk ndey ñu bokk baay maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf waaw. non loolu moom mooy am. soq moom waxuma la léegi sax combat bu mu am man damay dem këram bu fekkee dama nekk ci combat damay dem këram ba mu départ dem combat ma ñibbi sama kër bu fekkee newuma ci combat damay dem stade man moom booy ñaa man ñëpp xam nañ ci loolu mbaru Pikine bu muy bëre fa su ma amul nekk nekkuma ci combat boo xam ne diire bi jege na maa ngi sa open press open press bi jeexee maa ngi sa maa maa ngi bépp képp kuy mbëru Pikine mën nga ma seedeel lool. ma tamit ma koy seedeel ñëpp parce que ñoom tamit su ma amee bis ñoom ñëpp dañuy ñëw taxaw waaw loolu ñëpp loolu ah ah man bëgg naa de loolu ñëpp koy xaar sax te xam nga loolu dafa neex te man bëgg naa ko. waaw dama ne la dama ne la loolu ñëpp ko bëgg Pikine waa yëpp ko bëgg te ñëpp a koy xaar te man bëgg naa ko bëgg naa riso gars yi ko ak ñoom ñu bëri bu léegi xam mu neex loolu bëgg naa ko parce que gars yi xam nga rek Eumeu Sène suñu grand la Ama tamit borom baax la suñu frère la parce que nit ku nekk da nga koy waxal loo xam ci moom Ama jantal mel na borom baax la te tamit dafa ñafe laaj ko ba egg si fu mu yegg Eumeu Sène tamit suñu grand la comme ni ñu lu mu am ci lamb da ko mérito dafa ñafe ba toll fu mu toll donc loolu yëpp mu naa ne parce que ñu ko sekk nii méttiwul ay jara de gars yëpp booy ay borom baax fu ñu tey ñun dañuy kafree fu ñu tey dañuy kafree mbarak ba nga ne baru Pikine dañuy ñëw donc ñun tamit ñun tamit ñun mbëri yooyu ñett yooyu nga tudd ñu del ñu man ñu delloo ñii seet liñ ñu ñu delloo leen seen njukkal daal parce que ñoom bu ñu amee ñun bu ñu amee bis ñii ñëpp ngay gis ñu ñëw taxaw waaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp xam bu ñu waxee sax ñu jeexal parce que xoolu Pikine rek waxee. benn man du ma découragé ci Pikine. bu fekkoon feneen la bu ma nit woowee pour indi ma feneen bu fekkoon keneen la dafa am protocole yooyu jaar pour ma ñëw mais bu dee Pikine laajul loolu da ngay woo sama moom bu dee ma jugal damay jóg bu dee ma ñëwal damay ñëw. donc loolu laa moo tax sànq ci commencement man la ñaar laa fi ñëw dama fi ñëw doomu Pikine mais dama fi ñëw koo xamante ni waajuram moo ne ko jugal dem fii mu dem foofu donc amu ma sax hésité su ma fii ñëw bu ne waat suba waat dañuy woote waat sama papa ne ma jugal ñëw damay ñëw donc bu leen bu leen taay ji fu Pikine woote rek ngeen gis ma fa incha allah ñeneen ñi tamit comme li ñuy wax bu leen indexé kenn gars yi dañuy jàpp ñu ngi ci ay affaire ñu ngi am yitte xam nga ñenn ñu ngi tax am nga affaire mbër rek mais boo gisee Jules Baldé nga xam ne ama ah mi ngi fi lañang gis na ni taxawaay bi ni mu ci sonne mi ngi fi Aliou Ba boo gisee Bac Seraas mi ngi fi Pape Sarr boo gisee yeneen mbëru Pikine ñu ngi fi ñeneen ngi nii suñu ay gannaaw Tidiane Diop ngi nii ay Ousmane Kouma donc ñëpp ñu ngi fi rek nañu rafetal soow mi rek xam nga mun naa ñu gérer ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërëjëf